gërëm naa leen sant leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo ànd boobee Euh, yàlla na jëm kanam ci information yu wér te wóor ñu ziar leen bu baax a baax niñ ko waxee ndax lu ñu leen ziar doyul fans yi ak ñi nga xam ne ñoo ni bàyyi xel dina seetaan ci revue de presse bi ak yeneen information yoo xam ni bu ngeen koy déglu seen xol day mel ni wala gu mbottu yëgle bu am solo bii nag ginnaaw ñu ñëw ci lii di xibaar gars yi ginnaaw bi ngeen dabbar ñee la nekkoon ci sunuy magasin euh, ci Taïba Taïba yi ci wàllu karo conteneur ya wàccaat na ngeen gis ko noonee mu nekk karo yoo xam ne gars yu mucc ayib la karo boo yaakaar ne ci adduna wala ngal kàpp taabal ji yéen ñi seen i a coppati ndànk kare yi kare yi mucc na ayib gars yi kare yi damay taxaw di gis sama bopp jërul may wut seetu bu may dox ci kaw ak suuf fépp lay dabbar ñi sama yu mag yi nga xam ne ñoo ne ci diwaanu Thiès ak ñi ko wër ñun lañu jox confiance moo tax ñun bagage yu wérte wóor lamp yaag lépp wàcc na ci li nga xam ne mooy place yooyee gars yi robinet yi nga xam ni moo xew léegi da ngay teg sa loxo ci suuf mu mel ni courant ndox mi wàcc ndànk-ndànk gars yi sponsor bu mag bi ma nga noonee moo leen di may xibaar yi. ma nga noonee dañ koy jàppee wala boog dañ koy commencé poule bu rafet di kile euh, di euh, saw Félix ci yëglekaay bi nag. Mondo moom rek la indi ci euh, xëtam bu njëkk nag li tax mu indi ko dafa jàpp ni gone gi contre Porto ak match bi Barcelone mujj football la mu indi ci ay njàngat mooy gone gi bu ci ne daanaka dugal na bit maanaam avancement la gis ci moom xam ni gone gi fi mu toll nii fa mu jóge ak fa mu jëm léegi fi mu toll nii Cuqur Mbooj na xam na fi muy teg tànkam mi ngi koy teg ci temps ak kon daanaka mën ngeen a compter ci moom ak ki nga xam ni daanaka buñ demee ba ci kanam mooy Lamine Yamal yëglikaay bi nag indi na ko ab coppati golden boy bi nga xam ne daanaka wala boog euh, ki nga xam ne xale bu ndaw la booy dàmbariñ ci wàllu football ci marka yëglikaay marka moom li mu andi ci xëtt mu njëkk daanaka moom bu bees bi nga xam ne daa weex tàll weex a ca gën a bari mooy ballon bi a footballé euro mooy réew yi ne Europe ku boobee ñuy football mu am solo bu baax a baax waaye yëglikaay bi nag fàttewul xaritam di Bellingham ci li nga xam ni mooy victoire bu mu am te ñu jébbal ko ko démb loolee nekk na mbégte ci képp koo xam ni mooy bu weex ngay sol nekk na mbégte ci képp koo xam ni ab merengue la ñu siyaaraale merengue yi wax leen ni way leen di def seen i abonnement te it maanaam di aimé suñuy vidéo abonnement yi bëgguñu kuy seetaan te abonné woo loolee tamit daanaka dañ ko bàyyi xel Sportu ca Barcelone la ne moom it li mu ñëw daanaka rek mooy tër sa gën di ab gardien boo xam ne daanaka fi mu toll nii mi ngi ci gundaandaat ak yëglekaay bi tamit ñëw na ci Bellingham mi nga xam ne yëglekaay yi catalan yi moom soxorewuñ ko ndax andi nañ ko ah, ci catul yëglekaay bi daanaka moom belli mu jër gàddu ñaari kubam waaye nag Lamine yamaal mi nga xam ne gone la goo xam ni football espagnol mi ngi ko taxaw bu baax a baax ndax Lamine Yamal moom mais catalan yu bëree bëri mën nañoo compter ci moom waaye nag euh, du léegi nii maanaam wasin baa dem tool déedéet lu muy gën di dem ci kanam di gën di ñor di gën a jaar ci yoon loolee yëglekaay bi daanaka bàyyi na ko xel ah, bu baax a baax beneen yëglekaay boo xam ne daanaka ci la ñuy dëgmal ba tey di leen fàttali yéen ci Aladji Malick ji TV tey jii ah, tombeeg juróomi fan ci weeru décembre bi nga xam ne gaa yaa ngi koy gundaandaat décembre la boo xam ne feet la ci ñu baree bari yëglekaay bi di markaan nag ñu xaar ko mu yëg si wala as yëglekaay as turandoo moom li mu ñëw ci mu njëkk ñaari coupe ñaari trophée loole la tegal ci taabal ji kii di Todo El Merito maanaam loolee ci espagnol fi mu toll nii daanaka ah, espagnol moom soriwut juppal xam naa ne mérito na ko wala mu mérito lu raw loolu nga xam ne daanaka ay trophée la yu nu tegal ci taabal ji moom mii Jules Bellingham waaye ñoo na ji euh, Sao Félix mi nga xam ne tamit jàmbaar ja jàmbaar jooju mi ngi gondaandaat di doxantu bu baax a baax yëglikaay yëpp ñëw ci ci seen xëtu njëkk surtout as mi nga xam ne yaatal na ko bu baax a baax waaye as tamit daanaka ñëw na ci li nga xam ne mooy euro bii di waaj ñëw waaye loole il faut ngeen euh, du për ni li nga xam ne mooy kaay bi gars yi gërëm naa leen sant leen mu nekkoon revue de presse bi ci Aladji Malick TV gërëm leen ci ànd bi ànd bi am na solo tey kontaan nañ ci maximum de partage euh, ci suñuy vidéo yi nga xam ni yéen a ngi koy coppante ndaa nga fan si club yi ne ci réew mi ak bitim réew Côte d'Ivoire ak fu mu man di doon gis nañ lépp ñi ngi leen di béggee bu baax a baax yal yàlla dooli leen sutura ak jàmm ak tawféex ba ci kanam ci yeneen information